naa leen di ziar di leen fay bu baax a baax a baax di leen wax bon màggal ah ñëpp képp ku ñuy seetaan di ko di ñaanal euh, kilifa yi fi nekk yàlla yokk seen wér xam nga ñu yàgg ko fete ay at yu bare bëree bëri ba tax na mu doon loo xamante ne nag tey ku ma gis fii xam ne fii moom sama kër la muy kër Chérif Abdourahmane Fall Tilala doonoon wóllëre ci sama baay dem ba kër gi doon benn ba war a tax na chaque année nag dañuy ñëw fii la fii laay dal ci ñoom waaw loolu la di leen nuyu bu baax na di leen sant bu wér. alors lan nga ñu euh, mën a wax ndax daaw ci heure bi ki nga xamante ni moom mooy euh, kilifaam di waajuram bëggoon Abdourahmane Tilala Fall moo fi nekkoon ren ñu gestu gis ñu Abdourahmane Tilala Fall gis Abdou Aziz Fall ren loo yëg bi nga ñëwee fi. waaw mën naa ne mu ngi fi ba léegi mu ngi fi ba léegi waaw ba tax na garaaw na trop nag lañ daan gis daaw ak léegi wute na waaye nag dafa am loo xamante ne ñu ñëpp xam nañ ko muy que yàlla suñu boroom mooy boroom jaam yi ba tax na lu mu dogal nag kenn mënu ci dara waaw namm nañ ko trop waaye ba léegi mu ngi fi ndax ñu ngi koy yëg di ko sentir ne mu ngi fi. loolu rek doy na sant yàlla bu baax a baax taawam bii di sëñ Aziz Fall ñu koy ñaanal gudd fan yàlla na yéen bi oyof vraiment mu ngi fi daal mu ngi fi alhamdulilah. bëgg ñu woon wax euh, ci musique ndax euh, tey màggal moo ñu fi indi mais ndax mën nañu wax tuuti ndax ministre bi joxe na ndogal comme gars yi mën nañu reprendre soirée bi loolu lañu mën a xaar d'ici peu ak euh, Bambaali. spectacle waa yëgaguma ko nag wax dëgg yàlla déggaguma ñu wax ci dara. mais dans tous les cas ak nu mu munti demee comme ni nga ko waxee bésu màggal la waruñu woon sax wax ci musique mais daal dinaa xamal ne tamit même bu dul mbiru soire wala dara corona bi nga xamante ne vraiment sonal na ñëpp waaw euh, man moom maa ngi sama rukk di liggéey bu gars yi pare rek incha allah man pare naa. mën nañ xaar featuring yàgg la ko Seck. ak yéen xam nga ne ku ne xam ne ni jaagal laa bëgg. <laughs> waaye jaaga sama. xam nga loolu dina ko neex yàgg Wally Ballago Seck ngeen def benn featuring. yàlla fu toll nii ci wàll la des. ci wàll la des man pare naa bu yàgg. pour bu yàgg yàgg yàgg yàgg. ci moom rek la des des na yeneen ak yeneen. te dinañ ci gën a waxtaan incha allah mais tey moom comme que bésu màggal la dañuy sant rek bu baax di ñaanal ñëpp gudd fan nag.